barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. shari'atu alquran ak sunna rek ak waxi cheikh al islam nga xam ne du dara lu may luy fecc alquran ak sunna. ñu toog ak moom ñaari waxtu ak fukki minit ak juróom-ñeent muy wax wax ju am solo lépp lu lislaam tere ci liñ doon waxtaanee mu leeral ko lépp lum digle ci lu baax mu leeralal ñu ko buñ dajee ñu ñëpp fii dañoo war a sant yàlla imaam Hassan nag ñu ngi koy gërëm ci def li ko war ndax lii mu def nii mooy li ko war li mu nekk nii Masya allah ci lañ ko juré ci lañ ko yar mom lañ ko sant moy mission bi nga xamné mom lañ ko bayé bon nak bu ci nekké war nañ ko ndokkeel war nañ ko ñaanal yalla ñun ñëpp yalla dimbalé ko ci mission bi mamam nak cheikh ibrahim yass radiallahu anhu doona koo xam ne képp kuy doom adama wala lepp luy mbindef wala lepp lu yalla bind rek amel nga ko ngeureum nga wala nga ko ndax ku seet li daje fii ci ñu uute te ñépp benn baat dajale leen ñu bëggante ci yàlla comme ni ko imaam waxee ziyaare wante ci yàlla comme ni ko imaam waxee dépense suñu alal ngir ñëw fekkee lii comme ni ko yàlla waxe te imaam wax ko léegi ki nga xam ne moo xiir nit ñi ci loolu dajale leen ci kooku ñépp ameel nañ ko ngërëm te Cheikh Ibrahim dafa def loo xam ne dafa jafe maa ngi fàttaliku benn taalibe boo xam ne ambassadeur léegi wu Sénégal Guinée Bissau muy xataab soxna bindoon na ca teesam ba muy jàng Belgique ne gis na nguur yi ak Nations Unies ak organisme yépp li leen tax a jóg mooy boole nit ñi ñu bokkoo yemoo am égalité bëggante te loolu tënn leen te ñu ngi cey jëfandikoo lu nekk te gis na moom benn nit ci Afrique koo xam ne moom réussir na ci loolu taañoo jël yooni kooku muy Cheikh Ibrahima Niass ne na boo demee ca péeyam danga nga ko fekk tubaab danga nga ko fekk naar da nga ko fekk mbooleem làkki Afrique yi ak raas yi ñëpp ñu dog nekk benn bëggante di ànd ci yàlla ku mel noonu nag bu ko senegal amee ak gàmbi bu ko Afrique amee bu ko monde islamique amee comme ni ko président Jawara waxee ku mel noonu warta des gannaaw ndax nit koo xam ne bu ñu waxee intégration muy jaxasoo peuple yi nga xam ne fi ne mooy moo tere nelaw chef d'état yi yëpp ci Afrique ndax loolu rek ñu indil jàmm indil ñu koom-koom moom njëkk na ci ñëpp te exemple bi mu ngi nii bu loolu passé nag alxaaji abdullah ibrahim xalifa am na message bu ma sant bu jëm ci taalibe yi nee na mu ngi leen di fàttali ñun njaboot gi ñun doom yi ñun taalibe yi nee na bàyyi waxoon na ne tëraloon nañu ne nañ def congrès boo xam ne at mu jot ñu def ko ca Medina gannaaw bu ñu organisé ansaaru diin ci mbooleem gox yi ñu dëkkee taxawal fédération yi nee na congrès boobu bu ko yàlla mayee jàmm bu ko yàlla mayee li mu bëgg moog ay rakkam yii mu xaddam yu mag yi danañ ko waxtaanee fas nañ ne def ko année 1992 bii di ñëw ci biir année bi muy congrès boo xam ne mbooleem ko aju ci bàyyi ci àddina bi danañ la ci invité loolu nag dafa am lu ko jiitu mu ne yéen président fédération yi mu ne yéen muqaddam yi comme alaaj Souley Diop comme ñu nekk ci région yi kenn ku nekk ci yéen na ngeen taxaw ca daayira ya fa nekk ngeen organiser ko recenser ko contacter ñu pour ñu ñëw taxawal leen fédération moo xam fii la ci Gambie moo xam euh, Fatick la comme Ali Kotoli mu ngi ko taxawee moo xam Thiès la comme moom Hadj Mamadou Ndaw moo xam ca Louga la comme alaaji Dudu Guèye moo xam Tamba comme alaaji Ousmane Ndiaye baaba moo xam ca euh, Saint-Louis comme alaaji Ndiaye Dukke moo xam ca Njaareem comme alaaji euh, Jab Gajaga ak mbooleem fédération yi nee na na ngeen taxawal na ngeen recensé taalibe yi daayira ya fa nekk ngeen yëgal ñu ko Ansaarudin ñu def délégation boo xam ne dana jóge Medina ñëw taxawal leen seen fédération ndax bu ñu ko oote ci congrès boobu kat fédération yi la ñuy convoqué région bu amul fédération dafay jafe pour ñu may la cër bi nga war a am ca congrès boobu ak bureau ba ñuy taxawal ca Medina dafay jafe pour ñu xam ñan la ñuy jël ci pour ñu nekk responsable loolu loo xoolee naa leen ko jotal. barhamu baun waraun alifun thumma ha mi mun mujjal faydu tijaan jox ñu ñuy naan